Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer yaa man bi am daayi al bushuru يا مصطفى يا رسول الله يا بشر يا من بأمداعي تأتيني البشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر صلى عليك بتسليم بلا عدد baax xadiim loo asiyaahu walxadaru yaa muntaxaa yaa raxiis alakramiina maxan yaa man li xidmatihi ma xistu abtadiru salla alayka bi tasliimin bilaa nafadin man laa sharika lahu wal ismu muqtadiru yaa mujtaba yaa imaam al mursaliina mahan yaa man li xidmatihi maa xistu abtadiru salla alayka bi taslimin bila kadarin man jaadali bika fii daarin yaa bushuru mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi fii ci daarul moxti dëkkub maam Thierno Birahim ndaamal daaru nuy waajal màggalug daaru moxti mu doon le 26 ci weeru tubaab dëppoo ak bisub altine ginnaaw bu nu jëlee ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ndigal loolu jaar ci jëmm ji nga xamee ni moo fi nekkal borom daaru muy sëriñ Basiiru Anta Ñang yal na fi yàgg te wér ndigal loolu nag jaar ci alxaaji maam Cerno mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla ndigal lool nag wàcc si ci sëriñ Xalil Mbàkke xalifa sëriñ Moodu Maxtaar mi nga xam ne jëmm jii ñuy wooteel fii bis bii tey kilifa yii wër nu lenn ci ay jëwriñ ci njabootu borom daaru toog ci jataay bi gis ngeen sëriñ Moustapha Guèye kenn ci moom moom it toog ci jataay bi sëriñ Gana Messere Maxtaar mooy jëmm ji nga xamee ni waxtaanam lépp mooy kennal sëriñ Touba ak wane niñ ko war a kennale ak cër biñ ko war a jox lonte lottees na ci jox ko ko waaye ñu jox ko illa ji ak warma ji sëriñ Gana Messere Maxtaar nag daaru moxti gii mooy buntam ci sëriñ Touba xam ngeen ni màggal gi waajtaay wi ak fonk gum ko fonk moo waral le 26 di màggal gi waaye dimanche ba le 25 sëñ Ganna Messere Maxtaar fas yéene amal fii bés bu mag gàttandoo ko màggalu daaru muxti ginaaw bu mu jëlee ndigal ci kilifaam yooyu sëriñ Basiru Anta Ñang borom daaru ak sëriñ Xalil Mbàkke xalifab sëriñ Moodu Maxtaar ngir waajal nag bés boobu loolu moo tax ba ñu fas yéene fee amal appel avant première waaye ku ne xam na sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ni daarul moxti sëriñ Basiru Anta Ñang gépp kàddu gu ñu yëkkati mu jëm ci màggal gi ak mu jëm ci daaru ñu ngi koy yëkkatiloo Serigne Moustapha Guèye mii waaye digganteem mag sëñ Gana Messere ñëpp xam nañ ko mu ànd ak moom ci guddi ak ci bëccëg sëñ Moustapha Guèye moomu nag dana ñëw toog fii fas yéenee jotal ay kàddu wax nu appel bi nan la fas yéenee doxe ak programme bi ak waajtaayu bis bi nan lañ ko fas yéenee organisé kon nañu maase déglu Serigne Moustapha Guèye Serigne Moustapha bisimilah. ok jërëjëf Serigne Modou Mbaye Ndiaye. ci nuyoo yu am solo yooyu ak woote yu am solo yooyu nga xam ni def nga ko mbokk yi ci waxtu wi ci toogaay bi nga xam ni toog nañu ko fii ci kër Serigne Ganna Messere Makhtar yaakaar naa képp ku ko dégg wala nga gis ko jërul ngay laaj lu waral toogaay bi li ko waral mooy bis bi nga xam ne Serigne Ganna Messere Makhtar dafa jot ndigal fa mu baaxoo jotee ndigal te Serigne Modou wax na ko léegi jóge ci Cheikh Mamadou Nil Muntaxa jaar ci Cheikh Mamadou Bassirante Niang jaar ci El Hadji Maam Thierno waaye wàcc ci sëriñ Xalilu Rahman mi nga xam ni mooy jëmmi sëriñ Modou Makhtar Mbacké ci kaw suuf ngir am ndigal nag bis bi nga xam ni mooy bisub sant sëriñ Tuubaa si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul delloo njukkal borom daarul moxti waaye fàttaliku ak sant ak a ñaanal jàmbaaram ji nga xam ne amul lu dul moom muy Cheikh Modou Makhtar Mbacké mbokk yi bis boobu nag war a yemoog dimaas le 25 février ci atum 2024 fii ci diwaanu Daarul Moxti ci quartier Daaru Xudóos quartier Daaru Xudóos nag boo jugee Touba bay dugg dëkk bu sell bii di Daarul Moxti doo daanu bi ngay njëkk a jéggi boo xoolee ci sa càmmoñ da nga jàkkaarloog kër Serigne Ganna jàkkaarloog baas bi foofu mooy kër Serigne Ganna Messere Maxtaar Serigne Ganna nag ni ki may wooteel bis di ko delloo njukkal mooy kan Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti ki nga xam ne juróom-ñetti at yu manqué ca. Mbàkke Bari Jolof la sëriñ bi jógee ba atum 1902 mu dajeeg sëriñ bi ca Ndar nisfu samban te dara yàquwul mu di ko ci delloo njukkal ki nga xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul moo ko njëkk delloo njukkal mbokk yi bis boobu nag at mu ci nekk sëriñ Gana dafay xool kenn ci mag ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ba am seen ngërëmam euh, delloo leen ci njukkal waaye fàttaliku leen ñaanal leen dellu siwaat jamono li nga xam ne mooy seen i jikko ngir ndaw ñu bari mën a ci ñoom ren nag daf ko duppee koo xam ni fàttali ko ci koo xam ni yaakaar naa ñëpp mën nañoo jël ci moom exemple ngir ni mu àndee woon ak Serigne Touba àndee woon kook borom Daaru Moxti muy Nimraasu Njàmbur Serigne Mamar Sey kenn ku ne ràññee ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul mooy mag mi nga xam ni ren moom la ñu tànn incha allahu rabbi fas yéene koo jagleel li nga xam ni moom mooy bés bi waaye mbokk yi nag li nga xam ne moom mooy bis bi mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ko ŋànk yëpp yebal nañ fi seen délégation tàmbalee ko ci Serigne Khalilou Rahman mi nga xam ni mooy lépp Serigne Gana Messere Makhtar di jëmmi Serigne Modou Makhtar ci kaw suuf waaye Serigne ganna ba mu noppee gi Serigne Modou Makhtar teg ko ci kanamam yabal na Serigne Amsatou Mbacké doomam mu àndak ak Serigne Modou Makhtar ñu ñëw teew teewaay bu rafet. waaye mbokk yi itam kenn ku ne xam na ne bis bii Serigne ganna da koo tànn tuddee ko ñoo xam ni kenn du leen laajte ci réew mi. kenn du leen laajte ci lislaam rawatina ci liggéeyub Serigne Touba bii ma tàmbalee ko nag jàmbaari Cheikhul Khadim ji jàmbaari borom Daaru Muxti ji di ay Aïdara Mbacké moom amadu Serigne Ahmadou Dame Fati 244 nga xam ni ambassadeur la avocat la défense la ci yoonu Serigne Touba Seexul Xaddim waaye lépp nag ci xam-xam la koy teg ak pasif boo xam ni ku dégg turam da nga xam ni yeyoon na nag ñu jël bis bi njukkale ko ko delloo ko ko kooku mooy panéwu bis bi yabal na fi délégation bu am solo Cheikh Ablaye Ndiaye bokk ci ñi nga xam ne moo leen defar toftal leen mbooloo mu ngi nii toog ci jataay bi Cheikh Adama Ka bokk ci ñi mu deftal defar toftal leen mbooloo mi ngi nii toog waaye ànd ak euh, mboolem ñi nga xam ne fu gis sëriñ bi gis leen muy sëriñ Cheikh Awa Balla Samb sëriñ Mohamed Lam géwalu Mam Thierno Birahim ak sëriñ Abdou seen ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la seriñ bi yabal fii ci appel bi waaye mbokk yi itam kenn ku ne xam na ni mbooleem njaboot gi nga xam ni euh, mooy njabootu Serigne Touba ñëpp teew nañu fi waaye ki nga xam ne itam moom la ñu tuppewaat bis bi ñëpp ràññee taxawaayam ci réew mi ràññee taxawaayam itam ci liggéeyub Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul muy Serigne Mohamed Samb soldaaru Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul borom allahuma salli ala mawsuufi bil karami wal joodi ki nga xam ni fenn fu ci nekk nit nekk na fa jariñu ci salaatu ala nabi wala werd woo xam ne jariñ la sa digg sa borom liggéeyal ci Serigne Touba moo tax Serigne Gana ni nag nañu jël bis bii njukkale ko ko cërale ko ko ndax cër boobu Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko ko jox fa tabarakallahu waaye itam Cheikh si la mi nga xam ne ku ko tudd tudd Diédou Sylla ku ko tudd itam tudd luga mu bokk ci ñi nga xam ni juram ak mboolem ay maamam ñëpp Serigne Touba leen defar mu jël bis bi moom itam duppe ko ko ak mboolem ñi nga xam ni ñoo ko fi teewal ñëpp waaye itam eh, ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom la tuddee bis bi ci wàllu soxna yi ñun ñëpp xam nañu ni ku tudd yoon wi ci jigéen ñi danga tudd jigéen ñu baax ñi may mëgg a tudd ka jiitu mooy kan soxna Fatou Diagne Niass soxna faj jaan ñaasi di soxna sëñ Abdoulahat diir di jigéen joo xam ne lu baax rek ko ñor lëggéeyal Serigne Touba rek ko ñor jigéen la waaye kenn newut bu doon góor lu baax loo ko gis ci réew mi loxo ma nga ca la man lépp ma nga ko ci def sëriñ Gana jël bis bi duppe ko ko mu bokk ci marraine bis bi moom itam noo ngi am mbégte bu baax ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la fi yabal waaye nag soxna Mominatou Kébé moom alaaji Babacar Ndiouga Kébé mi nga xam ni lu way juróom bu baaxoo doon liggéey Serigne Touba ànd kook njabootu Cheikhul Khadim bu màggalu tubaa jotee wala gàmmo wala lépp loo xam ne dañ koy tudd tudd Serigne Touba fa tabaarakallaahu da ngay yëg ni taxawaay bi soxna Momy Kébé fa tabaarakallaahu ràññeekoo na ci lool noo ngi am mbégte bu baax di am mbégte itam ci bis mi nga xam ne Serigne Gana daf ko cee boole mu bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy marraine yi waaye di sant bu baax itam ak am mbégte lool ci mboolem kilifa yi nga xam ni teew nañu teewaay bu rafet fii nga xam ni moom mooy jataay bi bu ñu tuddee sëñ Gànna dañuy tudd Serigne Moustapha Guèye Serigne Moustapha Guèye moom Serigne Amsatou moom sëñ Mabey Guèye ànd ak rakkam Serigne Cheikh Tedd Guèye nga xam ni barki démb la jóge ci bisam waaye ba mu ci jógee dañuy Serigne Gànna lu mu nekk maa nga ca lu ma nekk maa nga ca bis bii man damaa wax ni lépp moo koy coordonné kon Cheikh Moustapha jëf yow itam ci teewaay bi bis bi Serigne Gànna lépp sa loxo la ko teg te yaa koy coordonné képp ku fi jël kàddu wala mu di ko wax lépp ci sa ndigal rek kon noo ngi am bu baax ci teewaay bu am solo boobu nga xam ni euh, def nga ko bis bi Serigne Gana daf ci am ay invité d'honneur yoo xam ne ku tudd réew mi ci lu baax tudd leen invité d'honneur yooyu man nañ cee tudd kan Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni généralu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom Bamba fépp Bamba partout Bamba merci ki nga xam ni la waykat boo xam ne Cheikh Bamba dem na fépp daj na fépp woote na fépp faj na aajo yëpp bu doon mbubb boo ko solee si Amadou Kara Mbacké Noreyni mu jàpp ko lool bis bii Serigne Gana boole ko ci invité d'honneur yi waaye kan nag gaynde Cheikh Mahamadou Lamine Bara Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba moom itam ci invité d'honneur yi la bokk ñoo ngi koy am mbégte lool ak mboolem mbooloo mi nga xam ni yabal na leen fi di jàmbaar lool diggante mag Serigne Gana ñëpp xam ko Serigne Gana njukkalee ko bis bi. waaye itam Serigne Khadim Lo Gaydel mi nga xam ni boo tuddee lu baax ci yoon wi tudd ko ñi mu defar bari lool. waaye mu nampatal leen nag ci kan mooy Serigne Touba si Amadou Bamba Xaadim Rasul am mbokk gu dox diggam ak sëriñ gànna te mu rafetal ko lool Serigne Gana jël bis bi moom itam delloo ko ci njukkal waaye nag ki nga xam ne mooy euh, Serigne Cheikh Jenn Jamhiya sëñ Cheikh Diène Jamhiya boo ko tuddee tudd sëñ Gana addinaam bi lépp mooy defar ak boole ba tax mu am turam wu yi wow waaye itam lëggéeyal Serigne Touba jaaree ko ci mbooleem ko fi nekkal Serigne Touba ak maamam yu baax yi nga xam ni moom la ko Serigne Touba subhaanahu wa taala moom la ko Serigne Touba booleel. waaye ki nga xam ne mooy Serigne Askia Touré Serigne Askia day lépp ci Serigne Gana magam la xaritam la. wóllëreem la te sëñ gànna amul lopp bis bii te du ñëpp la ci jox cër waaye jël na cër bu rëy nag jox ko ko boole ko ci ña nga xam ni mooy invité d'honneur yi waaye itam sëriñ Abdou Lahad Ka maire de la commune de Touba digganteem ak sëriñ gànna ñëpp xam ko mu am cër boobu ci daaru moxti sëriñ gànna nag jëlaat cër boobu delloo ko ko mu bokk ci invité d'honneur yi nga xam ni moom la ñu jagleel bis bi waaye ki nga xam ne mooy sëriñ Jili Ñang kennal sëriñ Touba Seexul Xaddim nga xam ni foo ko gis muy dem jërul laaj Serigne Touba rek ci lay xëy ci lay gont ba tax mu jël turam wu rëy wii duppe ko boppam àddina bépp nangu ko ndax aw doxinam muy Serigne Jili Ñang kennal Serigne Touba waaye ki nga xam ne moom mooy euh, madam Dieng fondation servir Malem Odar di soxnas honorable député monsieur Omar Dieng ak mboolem ñu mu àndal waaye madame jëng moom la ñu def invité d'honneur moom itam ci bis bi ci ndigalu Serigne Gana Messere li ko waral mooy. cofeel gu gi moom sëriñ gànna lu sëriñ gànna nekk mu nekk ca lépp lu sëriñ gànna di yëngu boo geesoo gis ko moo tax sëriñ gànna jël bis bi moom itam cëral ko ci kon madame Dieng moom itam bokk na ci kilifa yi nga xam ni dañu leen a duppe bis bi waaye di ko di ko yëgal bu baax itam ci invité d'honneur yi ñu di ko yëgal bu baax di ci boole monsieur Mamadou kase directeur général SICAP kenn ku ne xam di gëm ak sëriñ gànna mu fonk sëriñ gànna lool bëgg ko ngir jëmmi sëriñ Tuubaa te sëriñ gànna nee na kuma ma rus sa topp ngir jëmmi Serigne Touba ndombal tànk loo mën a am ak foo mën a féete rusuma laa delloo njukkal ngir jëmmi Serigne Touba kon nag euh, monsieur Mamadou kase directeur général SICAP moom itam ci invité d'honneur yi la bokk waaye DC Mamadou Guèye directeur général impôts et domaines kenn ku ne xam diggam ak Serigne gann Messere Makhtar mu dëgg ci département bi dëkk fii ci Ngumba Géewul waaye diggam ak Serigne gann nag lépp di Serigne Touba kese moo tax sëriñ Gana jël bis bi moom itam delloo ko ci njukkal waaye itam cëral ko ci cër bu am solo bi nga xam ni moom la ko cëral ci bis bi waaye di am lool ci teewaayu mbooleem njaboot gi nga xam ni teew nañu teewaay bu rafet bokk ci njabootuk sëriñ Mamar Sey sëriñ Abdou Lahad Sey ànd ak sëriñ Abdoulahi euh, ànd ak sëriñ Abdou Khadir Jili Sey ànd ak sëriñ Fallou Dieng waaye itam ànd ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñu nga jógee ca xalifa ba di sëriñ Abdoulah sëriñ Abdou Samad Sey ñëw teew fi ci ndigalul njabootuk Serigne Mamar Sey Nimraasu Njàmbur ñëw teew fii kon nag Serigne Gana dafay wax ni la borom daaru waxoon rek borom daaru dafa waxoon ni bu ngeen nekkee ci àddina bu leen diir kenn jam ko waaye ku leen jam bu mu nani ñu ne ko loolu mooy lan mu ni bu ngeen nekkee ci àddina bu leen def nit lu bon bu leen ko ko wax waaye ku leen lebal lu baax bu leen tëdd nelaw te fayu leen ko ko bis bii bu ci sëñ Gana jógee ba ba mu del si déwén ci tànt yi lay fanaan ci bis yi lay fanaan kon ñi mu tànn tuddee leen ko bu doon téeméeri nit da leen caa tànne waaye waroon naa mën a mat junni nit nag ndax lebal nga ko réew mi lebal ko waa lebal ko njabootuk Serigne Touba te ko woo ci sa bis dana sawar lool ci fekk si la fii ci Darou Mouhty fu la waaye fekke si nag neex na la waaye amoo lu du Cheikh Modou Makhtar Cheikh Modou Makhtar Serigne bal la Balla Serigne Cheikh Awa Balla Thierno te Thierno amut bis bu gën a rey bis bii Serigne Touba dellu see ci tukki bi te lam ko bàyyi woon dara yàquwul moo tax dañuy jël kàddu gi nag jox ko sëriñ daam jóob ci turu jëwriñ Serigne Ousmane Kama juróomi groupe yi nga xam ni ñoo lëkkale soppee sëriñ gànna yi ci biir réew mi ak bitim réew kuy fekkee sëriñ gànna ñoo la war a dalal kon sëriñ daam dañuy jël kàddu gi jox la ko nga ubbi jataay bi jël yëkkatee kàddu ci turu sëriñ Ousmane Kama dalal gan ñi ñu doog a jàll ci kilifa yi nga xam ni war nañoo yëkkatee kàddu woote jëmale ci bis boobu nga xam ni moo war a doon dimanche 25 février ci atum 2024 ci Daarul Moxti ci kër sëriñ Gànna Mesra Maxtaar ci quartier Daaru Xudóos sëriñ Daam kàddu gaa ngi nii. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh mun Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool ci wéral ko ba yéene yi mu am ci liggéeyal Xaadim Rasul mottali ko ñoo ngi wax ci turu jëwrin Serigne Ousmane Kama mi nga xam ni mooy jëwrini fonda jëwrini fédération bu soppey Serigne Gana Messere Mokhtar ginnaaw bu ñu nuyoo suñu kilifa yu baax yi nekk ci barab bi nga xam ni mboolem ku fi teew tey soppey Alaaji Gana Messere Mokhtar ñoom nga fi teewal ñoom ñoo war ñoo la war a dalal tatagal la ñoo ngi jaarale suñu nuyoo nag ci Serigne Moustapha Guèye mi nga xam ne ku ko xam-xam kook Serigne Gana Messere Mokhtar mu jot lu ñu ko ci mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw yëpp rek di wax ci turu jëwriñ Serigne Ousmane Kama mi nga xam ni moo jiite mboolem groupe yi nga xam ni ñoo sopp Serigne Gana Messere Mokhtar ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul muy fédération bi nga xam ne lëkkale na juróomi group di ko dale ci groupe nga xam ni Serigne Mouhamadou Dianka moo nekk ci bopp bi nga xam ni mboolem groupe yi nga xam ni ñoo lëkkale groupe yëpp moom moo nekk jëwriñ ji ginnaaw bu sëñ Ousmane nekkee ci bopp fédération bi woote bi ñuy woote nag mooy woote bi nga xam ni moo ñu fa dajale ñun ñëpp comme ni ko bokk yu baax yi jiitu waxee mooy sant Serigne Touba delloo njukkal borom daarul moxti waaye ñaanal seriñ Mouhamadul Makhtar mbake nga xam ni moo ku ko xam xam kook Serigne Gana bis bi nag mi ngi doon dimanche le 25 février atum 2024 fii ci daarul moxti booy dugg daarul moxti ci juuti bi rek foofu ngay jàdde comme ni ko Cheikh Moustapha Gueye waxe ñoo ngi woo mboolem foofu soppe mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di woo waa organisation ci njiital Serigne Latir Ndiaye waaye di woote ci mboolem groupe yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci fondation ci fédération bi yëpp rek fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di woo ci biir réew mi ak bitim réew di wax ni comme niñ ko daa wootee rek na ñëpp fanaan si bu samedi incha allahu rabbi ndax bis bi dimanche la kon samedi ñëpp dañuy fanaan si bu ñu xëyee ci dimance ji rek mën a nekk ci liggéey bi ndax mbooleem lu nekk lu war a dem ci bis bi rek soppee ñoom ñoo ko war a taxaw ñoo ngi woo itam soxna yi nga xam ne ñoo bokk ci ci ci uh, ci fédération bi yëpp rek ci njiital suñu waajur yaay Soda Sarr ñoo ngi woo biir réew mi di woo bitim réew di woo xarit am di jàmm wëlëre képp ko képp koo xam ne sëñ Gana mos na laa bégal senn saa ñoo ngi lay woo sëñ Gana dafa am wax ju mu waxoon soppe yi booba ba léegi loolu la mos di wax muy lu ma sëñ Tuubaa nar a fayee te naru ma koo bokk ak yéen yàlla bu mu bu ma ko am loolu nag kon bum mu ñu gën a gore loolu la ànd ak ñun booba léegi wax na ba tàyyi yéenay samay fit yéenay samay xeej yéen a may wettili yéenay ànd ak man fu ma mën a jëm loolu nag as gor rek moo ko man kon fu koo xam ni sëñ Gana mos na laa bégal ndax sëñ Moustapha Gueye wax na ko léegi yaakaar naa ron na tànt bu nekk kër gu nekk boo fa demee sëñ Gana mos na laa lebal kon képp ku sëñ Gana mosal mosal lebar rek ñoo ngi lay woo ci bis bi nga ñëw fay suñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu teew fi ci pour euh, sëriñ Abdou Samad Seye mi nga xam ne tey moo tooge jotaayu sëriñ moo Mamar Seye lampum njàmbur santoon nu ne loolu sëñ Gana def neex nañu neex nañu lool ba tax na mi ngi sant bépp taalibe boo xam ne yaakaar nga sëriñ Mor sa sëriñ moor Fallou Seye waaye sax gën naa sori loolu képp koo xam ne rek sëriñ Mor Abdoulahi Seye mu mag ma meññ na la rek lii nga xam ne moom la cërale sëriñ Mor Fallou loolee na nga ko def sayfi bopp looloo sabab nu ànd fii tey ci man ma teew fi ak sëriñ Mor Abdoulahi Sey moom seex ma Massamba Sey ak sëriñ euh, Abdoul Khadir Sey moom sañ Haydara Sey ak sëriñ Fallou jang moom bay Modou Diop bi waaye moom soxna Diop Sey moom sëñ Mor mu sant ne nañ fi teew te lépp loo xam ne mi ngi fi xew nu ànd kook sëñ Gana ci taxawaay yeeg jëf yi di wax ne nag lii nga xam ne moom la def te mooy di fàttaliku sëriñ Mor Fallo loolu ak amam solo moom dañuy bàyyee rek ndax sëriñ Touba li nga xam ne daf koo def te muy ay taxawaay yoo xam ne ab liggéeyam da koo feeñal eh, ci ñi nga xam ne ñoom la doon defar loolu lañ jàpp ne rek moom la cay dakk ngir jamono laaj gu mu laaj ñu yëlëbaan mag ñooñee teg leen ci kanam ngir ñu bañ a juum bañ a fakkastalu ci lépp loo xam ne rek mi ngi ci seen kanam ndax jamono jaxasoo na lool te borom xam-xam bu mag daana wax ne dafa bokk ci li nga xam ne eh, dafay sabab yi gën a dëgër la min aqwal asbaabi la wax fii nahdatil albaabi qiraatu sigaari li siyari yi mooy gone yi ci boppam faw ñu wan leen mag ña bu ñu leen ko wanee ba noppi nag ñu teg ci seen tànk ba njuumte yeeg rëq-rëq yi nga xam ne léeg-léeg day feeñ ci dox yi nii loola mën a caa jaar ba ak jubbanti ko am ca sëñ sama Samad wax ne képp koo xam ne yaakaar nga sëñ Mor Fallou ci njaboot njabootu boppam gi ak sëti sëñ Mor yi ba ci sëtaati sëñ Mor yi ñëpp jox na leen ndigal ci ne nañ ko ànd ak sëñ Gana ci ci ci taxawaay kon loolu ci sama kàddu wóotu na wóotu naa ci ñi màndal ñëpp kon neex na ko lool te ba ma ko ko waxee ne ko sëñ Gana kat dafa am lu la sëñ Mor Fallou mu ne ah moom de sëñ sëñ Touba doon na ko fay borom daaru fay ko sëñ moor fay ko nii nii la ma ko waxee kon nag loola lu yaakaaru loolu te sëñ Mor Fallo nga xam ne it eh, buñ koy fàttaliku fii ci kër maam Thierno moom yaakaar naa du lu bees ndax moog sëñ Ibra moog sëñ Ibrahima Diop almasar yooyu li ñu wax ci sëñ sëñ sëñ borom Darou Mouhty xamee su ko keneen ku ko wax ci ay xasaayit ay di ay dawaawin lañ ci lañ ci def yaakaar naa ko di gëstukar rek da nga da nga xam loolu kon nag sëñ Gana eh, bëgg nañ lool ci ànd koog yow di ñaan sama borom jataay bii mu bokk jataay yi mu gërëm lool te loolu lañ rafet jort lool ci bokk na ca ba noppi ndax euh, mboolem ñu baax ñi nga xam ne yaa ngi dakk ak mbaax ci ñoom ngir fesal leen ca loola lu yaakaaru la te loola yow mën a yàlla lool yàlla na ci yàlla defal lu sedd sa xol lu kawe sa lool ak mboolem ñi nga xam ne ànd ànd ngeen ko yi nuyu bu baax sëñ Moustapha sa wëllëre sa xarit boobu yi noo ngi koy ñaanal moom it bu baax ci ay taxawaayam yi ñuy dégg lool waaye gise bi néew lool waaye loolu rek mooy solo si kon yàlla yàlla jëmmal lépp rek te jubal jéego yi hada wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi bokki jullit ñuy seetaan te di nu déglu noo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam nuyoo bi it ñu ngi ko jëlee ci sëñ Xalilu Rahman Mbakke mi xalifatu Cheikh Ahmadul Maxtaar ibnu sëriñ Cheikh Awa jaar ci mbooleem buntu kër yi sëñ Modou Maxtaar Mbakke yépp sëñ Xalilu Rahman yabal na fi boole woon na akub taawam sëriñ Amsatu Mbàkke mi duppee sëriñ Amsatu Mbàkke mi bokk soxna Jaara lépp boole ñuy ak sëñ Modou Maxtaar mbaki mi nga xam ne mi ngi ko duppee way juróom joxoon ñu digal nañu bu ngeen julee takkusaan na ngeen dem ca kër sëriñ Gànna Mesere teewal fa teewal fa njabootu sëñ Modou Maxtaar teewal fa buntu sëñ Modou Maxtaar yi joxoon ñu ndigalit nañu bu ñu jikkee nañu yëkkati kàddu woote ci mboolem buntu këri Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké yëpp tàmbalee ci Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne mooy jawriñu kër Serigne Modou Makhtar sëñ Bekaay mi nga xam ne moo nekk jawriñam te jiite fédération kër Serigne Sidi ñu ngi koy soññ ci bis bi nga xam ne sëriñ ganna daf koy woote fii ci Darou Mouhty mu war a nekk dimanche yemoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février muy bisum ñaan bisum sant ak delloowaat njukkal maam Thierno Birahim delloowaat njukkal Cheikh Ahmadou Makhtar mbake mi nga xam ne mooy sëriñam mooy wasilaam mooy waay juróom mooy léppam boobu nag moo tax sëñ Xalil ne mboolem bunti kër yi sëriñ Modou Makhtar yëpp nañ leen ko yegal nañ leen ci soññi di soññi eh, sëñ Makhtar Sill mi nga xam ne mi ngi nekk Italie di jëwriñ sëñ Jili mbake ak mboolem mbooloo mën na ci gannaawam ñëpp waaye it bu ñu nee ñi ngi soññi sëriñ Paate Diop daarul mooti gii la féete jiite mboolem bunti kër yi sëñ Cheikh Assa Dieye Mbacké Makhtar yëpp moom it ñu ngi koy soññi di ko ko fàttali eh, Baye sañ Baye juuf nekk ci njaareem jiite jëwriñu kër sëñ max Mahfouz ak sëñ Mbacké Soxna loo Makhtar sëñ Modou Makhtar Diop bene moom mi nga xam ne it moo jiite kër sëñ Maam Thierno Mbacké Makhtar mi nga xam ne moo soxna jaara bokk lépp moom it ñu ngi ko koy yëgal di ko soññi di ko yëgal eh, mboolem buntu kër yëpp ku lim doo juum wala kulim da ngay romb waaye bu ñu tuddee rek sëñ Xalil mi ne ci bopp bi bàyyiwun kenn kàddu yi it ñu ngi koy yëkkati ci turu jawriñ alhaaji sumbul mi nga xam ne sëñ Modou Maxtaar moo ko waxoon na ko yaay sama jawriñ te gisaguma ci réew mi ku ma gën jawriñ ak euh, fi mu toll ci at moo tax sëriñ bi jox nu digal ci bis yi su ñëwee ñu ñëw fi teewal fi buntu kër yëpp kon sëriñ bi nee na foofu bi nekk na nga xam ne bis bi sa bis la ndax kii def ki woote bis bi kenn la ci njabootu sëñ Modou Maxtaar ndax bi fi sëñ Modou Makhtar di nekk lépp lu sëñ Modou Makhtar mas a woote wala sëñ Modou maxtaar mas nekk kenn mënu ko ca ci jikkoom ci jëfam kenn mënu ko ci ci lu ñuy ci lu ñuy teewe wala lu ñuy woote kon sëñ Xalil nee na bisam boobu bisu njaboot gépp la nee na waxut waa kër sëñ Modou Makhtar waaye taalibe yëpp nee na mi ngi leen koy soññi rawatina it njaboot sëñ Modou Makhtar gu jigéen gi soxna maam Fatim Mbacke mi nga xam ne mooy taawu sëñ Modou Makhtar bu fi nekkoon tey mooy taw mooy xalif sañ Mourou Maxtaar sëñ Xalil nee na moom mi ngi koy jiital ci woote bi ak mboolem koo xam ne soxna nga su ma tuddee soxna maam Faati nag mel na ne tudd naa ko sëñ Mourou Maxtaar jur ndax nañ xam ne fi ngeen di wuy si yéen a ngi fekk seen nawle fekk fi seen rakk fekk fi koo xam ne yéen a bokk sëñ Mourou Maxtaar te kon moom képp bu ko woote woon ngeen bàyyi seen yitte yëpp fekk ko fi rawatina nag sëriñam ki ko yar di woote kon sëñ Xalil nee na mi ngi soññi taalibe yëpp soññi njabootu sëñ Mourou Maxtaar gépp ndax màggal gi kat bu ñëwee suba la màggul daaru muxti la kon foo ab taalibe nekk dana la fekk ci dëkk bi kon yitte joo mën a am ak loo mën a nekk da nga ñëw fii ci bis bi ànd ko sëñ Gànna ba sëñ Gànna def bis bi ba noppi nga soo yegg si nag ca kër ga ànd ak sëriñ bi màggal gi kon sëriñ baa ngi ciy soññi ñëpp bàyyiwuñu kenn bay bàyyiwuñ ci fenn bay bàyyiwuñ ci yenn sëriñ bi nee nañ ko daan doxee incha allahu rabbul alamin buñ ci yàlla yóbboo mi ngi soññi taalib yëpp ñu doxee ci ñaan yàlla yóbbu nu ci dañ bokk fekk ko te dal ko te daj cee ngërëmul ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ak Cheikh Ahmadou Maxtaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi noo ngi leen di leen ziar tey sant yàlla ci jataay bii nga xam ne day jataay wooteeb liggéeyu Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Muxti waaye kenn ci jàmbaari Sëñ Tuubaa di sëriñ Gana Messere Maxtaar woote liggéey bu toll nii waaye liggéey bii nag mu jël sunu jëwrin sunu bunt ci yàlla Seydina Mukarram Cheikh Alioune Aïdara mbakke def ko li ñuy wax parrain loola nag sëriñ bi yónni ñu fi man ak Adama mi ngir ñu teewal ko fi waaye santal ko sëñ sëriñ Gana Messere mi ci yëg gi mu ko mu ko yëg ci liggéeyu Cheikh Ibra Faty bi waaye yëg gii mu ko yëg ci liggéeyu Sëñ Tuubaa loolu nag sëriñ bi mi ngi woo bépp bi boo xam ne aju na ci moom naka jekk màggal Daaru Muxti ñëppay ñëw waaye yëgle bi mi ngi ci tàmbale di taawam di sunu jëwriñ ñun ñëpp muy Cheikh Mouhamad Dame Faty Mbacké di taawam sëriñ bi ñu koy jiital ci woote bi ak mbooloo mi topp ci ginnaawam yëpp muy fédération daara ji ak képp koo xam ne sëriñ bi jaboote na la nga topp ci ginnaaw sëriñ daam mooma noona itamit la ñuy jiitalee cheikh daam ahmadou fati Seck di jëwriñu cheikhul murabbi yëpp kon loolu bu ñu ko woowee woo nañ mboole seen cheikhul murabbi aju ci kër gi noona la ñuy wooyee jëwriñ ja féete ndakaaru muy sëriñ góor a ñang ak mboole seen taalibe féete ndakaaru ñoo ngi leen di woo waaye jëwriñ ji féete Thiès muy sëriñ xaadim mbay moom ñoo ngi koy woo ci bis bi sëriñ ba te di ko fàttali ngumba ngéewal mi nga xam ne nag mooy daara ji nga xam ne mooy cosaanu daara ji fala liggéey ba tàmbalee jëwriñ Alsaan Gay sëriñ ba nga koy woo mboole seen jëwriñ nekk bitim réew tey waaj màggal gi tey màggal si ñu féete Amérique ñu féete France ñu féete itali Espagne ba ci Allemagne am na ñu ñëw ñoo ñëpp sëriñ bee ngi leen di fàttali bis bi te wax ne kat sëriñ Gana yëg gii mu ko yëg day wax ne góomu mbëggeel sungufu si yëg nee na mbëggeel bu dee góom yëg rek moo ko mën a faj kon nag noo ngi lay sant bu baax a baax ci lii nga ñu duppeel sunu sëriñ ndax amuñu ku dul moom kon nag ñu ngi woo mboole seen sunu bokki taalib yëpp ñu waaj bis bii nga xam ne mooy bisub Cheikh Ibrahim muy le cinq di sësaloog bis bi kon moom mooy moom moom mooy laltaay bi mooy cëslaayu bis bi kon nag bis booba incha allah rabbi danañ ko woote danañ ko ànd ak sëriñ Gànna danañ sant Cheikh Ibrahima Fati tey ñaan sunu boroom gën koo dëgëral moom sëñ Gànna gën koo kattanal ba lii muy nos mu am ci ndam yu kawe kawe barke Cheikh Ibrahima Fati ñu ngi jéggulu tey woo ñëpp wasalaama rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal sëriñ Bachir Wanta ñaan xalifa Cheikh Ibrahima di ñaanal ak a siyaara sëriñ Xalilu a xalifa si Ahmadul Maxtaar ak mbooleem njaboot sëriñ Moodu Maxtaar gi yëpp di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay bi te ñu bàyyi ko ci Serigne Dame Fati Serigne Aydara Mbacké am mm-hmm. Serigne Dame Fati mm-hmm. moom maam Thierno borom Darou Mouhty mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko da yéene yeeg taxawaay bi ñu am ci liggéeyal ko Cheikh Ibrahima mu àggale ko ci jëwlinam yi nga xam ne ñoo fi teew muy sëñ Abdoulahi ak sëñ Adama waaye di nuyu sëñ Abdou Samad sëy mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mamad sëy ni brasu njàmbur te njaboot gi teew sëñ Abdoulahat mën nañ si sa tudd di mu teewal ko ak njaboot gi yëpp di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko ci kanam njaboot gi wéral ko waaye sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ne euh, mooy borom daara ji hmm. daaw ñu yëkkati kàddu ci liggéey bi waaye tey ji moo joxe ndigalul ne nañu yëkkati suñu kàddu hmm. kon moo tax ñu jëfee ndigal loolu Cheikh Moustapha wax hmm. ba tax ñu yëkkati suñu kàddu kàddu gi nag mooy fii ñu jaarale liggéey bi rek Cheikh Moustapha mooy bis boo xam ne daal dañ ci fàtt dañ ci sant Serigne Touba di ci delloo njukkal borom daarul moxti waaye di ci ñaanal nag suñu wasila suñu wayjur wa Cheikh ci bis bii nga xam ne ci weer wi ci la wàcce woon waaye nag saa yu dellu seet ñu jàpp bis bii di ko ci ñaanal mm-hmm. muy bis boo xam ne dañ ko baaxoo amal ci Touba ana mm-hmm. def nañ ko lu mat ñaar ngir woote yu bari yi ci at mi mënta nekk te Daarul Muxti mënee su fee ñàkk a woote ñu jël bis bi indi ko léegi bu ne suba la màggal gi rek ñu def ko fi mm-hmm. kon moo waral woote bi ñoo ñoo ko yëgal bokki jullit yëpp ak bokki taalibe nii ñu ko waxee léegi ba ñu ko mooy mag ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ndax ñooy royuwaay mhm. ñooy delluwaay ñoom la sëñ Tuubaa waxoon ne wala ñu xaali an jaabun yafusuuna bil muna wa maa xaqani an sukri mawlay asbab tey ji yàlla dogal na ñu tànn ci sëñ Mamar Si Nibrasu Njàmb ngir mën ko ci fàttaliku jàngatat ay dundam jàngatat ay bindam ñu mën koo jariñoo mhm. ndax ñooñu ñooy roy téef mhm. waaye waxtu wu ne yàlla boole na wëlëre yoo xam ne it dañu leen di delloowaat ci bis bi moo waral ñu jël sëriñ ay daram sëriñ daam fàtti li nga ne kenn ku ne ko ci ay jëfam ci daarul moxti ay jëfam ci di koo xam ne la hmm. Sëriñ Tuubaa ne woon isil murabbi laa yuridu fil murid ilal wusula naajiyan minal marid hmm. aji defar ji moom nëmbul ci li ki muy defar lu mooy ñaar egg hmm. ak mucc moo tax mu defar aw nit di leen eggale seen borom lam musal rek leen musal liggéey boobu nag moo tax ñu jël sëriñ daam boole ko ci waaye sëñ Mouhamed eh, nga ko sëñ Moustapha nga xam taxawaayam xam yitteem ci jëmm liggéeyal sëriñ Tuubaa ak bëgg sëriñ Tuubaa tax moom it ni jël bis bi ne nañ ko ci darajaal féetale moom mii ngir ñu ànd ko muy Mouhamad Samb soldat mm-hmm. waaye it euh, sëñ Cheikh Abdou mm-hmm. ca Louga mm-hmm. moom it doomi sëñ Mor nga xam ne ku ne xam na taxawaayam sëñ Mor Wali Sylla doon suñu wëllëre doon suñu xarit ndax moom it ñu ne nañu tànn fat moom it bis bi euh, cëral ko ci ndax yàlla boole nañu wëllëre wu yàgg nu yàgg ko ànd ñun ñëpp ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal bis bi yëpp ànd ko di ko taxaw te di ko liggéey muy bis boo xam nag namuñu ci lu mooy rek nii nu ko waxee mooy sant ci sëñ Touba delloo ci jukkal borom daaru ñaanal ci Cheikh Mahamadul Maxtaar di sant sëñ Xalil Mbakke bu baax a baax ndax moo fi yebal sëñ am sa doomam ak sëñ Mahamadul Maxtaar Diop mi doon yëkkati kàddu léegi mm. ndax lu ñu fiy def rek ci ndigalam la mm. ndax mooy boroom kër gi ba ñu noppee gis bàyyam moom lañ joxoon sunu bopp loolu it moom la ànd ak njaboot yëpp kon noo ngi koy yëgal ñëpp di ko wax ñëpp incha allah bis bi mm. mu war a doon dimanche le mm. vingt cinq mm. fàttewuñu kenn fàttewuñu fenn fàttewuñu ñenn yàlla yàlla nangu lépp déggalu suñu suwaa tax ñu yëkkati suñu kaddu ndax moo ne ma tey moom te tax ma ñëw toog maa bëgg nga yëkkati sa kaddu loolu nag ndigal loolu laa doon jëfee waaye baaxuwunoo yëkkati kaddu kon Cheikh Moustapha moom it doo koy sant baax ndax ku ne ci coono la ci la jóge waaye teewul tey mu ñëwaat wax ne du ma ko defloo kenn nii laa ko bëggee nii lañ koy doxe mm-hmm. bu kilifa yi waxee na nga jël sa kàddu nga tontul ma leen mm-hmm. te woote ci la ca des nga bàyyi ko sama loxo kon liggéey baa ngi noonu wasalaamaaleykum wa mbokk yi kon dégg ngeen woote bu am solo boobu nga xam ni moo jógee ci mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fii tey ci kër Serigne Ganna Messere Makhtar ci Darou Mouhty ngir waajal bis boobu nga xam ne mooy sant Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul waaye de ko delloo njukkal itam borom Darou Mouhty waaye fàttaliku ak sant ak a ñaanal Cheikh Mahmoudul Makhtar Mbacké murid sadix ba jàmbaar ji nga xam ni dañoo mën a ñun ñëpp mën nañoo seede ni moom la yàlla fayee Serigne Gana mi nga xam ne tey la mu yéene woon ci xamle kat mooy Serigne Touba yàlla fay na ko jëmm ji toog tey kon bis baa ngoog mbokk yi dégg ngeen kilifa yi nga xam ni woote nañ yëpp muy njabootuk Serigne Mamar Sey Nimraasu Ñambur dégg ngeen itam njabootuk Serigne ah, Alioune dara Mbacké moom Serigne Ahmadou Dam Fati mi nga xam ne boo ko tuddee ci réew mii ñëpp fa tabarakallahu danañ sawara nag teewee jataay bi nga xam ne moom lañ ko tuddee ndax damay faral di ko wax ni ko mbakke yow say kaddu naan guy li mar la ndax lépp day tegu ci yàlla sunu borom waaye dellu ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim waaye nag am nga lu luñ mën a wax bu ci teegee ndax jëf nga ko ci say bokk jëf ko ci njabootu borom daaru moxti jëf ko fi ci ko fi nekk mos a nekkal Cheikh Ibrahima Fati borom daaru moxti Serigne Cheikh Abdou Silla dégg nga fa tubaarakallahu njabootug Baay moor ñoom nee nañ fu sëñ Gana nekk mel na ni ña nga fa fa tubaarakallahu mboolem njabootug Baay moor gi yëpp mel na ni ñoom itam ñoo ngi ci biir euh, délégation bi ñëw teew ci wàllu marraine itam dégg ngeen ko soxna Faj Jaañ Naasi ak ajal soxna Momi Kebe moom Alaaji Babacar Njuga Kebe ñoom ñëpp ku ci nekk sa digganteeg Serigne gànna dafa rafet lool moo tax itam ñu cëral leen bis boobu Serigne Gana di ko yëgal bu baax itam Serigne Mor Diagne ca Njaañ digganteem ak sëriñ Gana àddina bépp mën nañ koo seede noo ko koy yëgal bis bi at mu ne da koy teewe ànd koog ñun ba mu jeex tàkk docteur Souran di directeur hôpital Cheikhul Khadim bii ci diggante Daaru Moxti ak Touba sëñ Gana mi ngi koy woo ci bis bi di ko sant di ko gërëm itam ci seen diggante bu rafet waaye Cheikh Daouda Seck moom sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké mi nga xam ni foo ko fekk mi ngi liggéeyal sëriñ Saliou ci daara yi ci dongo yi ci mboolem li nga xam ni sëriñ bi ca la tegoon ay tànkam ma ngi koy liggéeyal sëriñ bi sëriñ baa ngi koy woo ci bis bi di sëriñ Gana Messere Maxtaar mbokk yi bis bi nag sunu digganteeg bis bi juróomi fan yi ci si yëpp sëriñ Gana bis bu ci nekk màggal lay doon fii ci këram ci Darou Mouhty bis bu ne dinañ def plateau spécial boo xam ni dañuy tànn kenn ci mag ñi àndoon ak sëriñ Touba jagleel ko ko dinañu tànn plateau boo xam ne dinañu ko jagleel sëriñ yi bu Bousso yaakaar naa buñ ko waxtaanee woon mel na ni sëriñ bi lañu ñu waxtaanee danañ tànn benn plateau boo xam ni danañu ko waxtaanee sëriñ Ahmadou Diaw Paxa sultaanu Arifin waaye danañ tànn palaato boo xam ne danañ ko waxtaanee Cheikh Issa Diène mi nga xam ne bu ñu ko waxtaanee waxtaanee ñu yoon bi waaye danañ tànn plateau boo xam ne nag dinañu ko waxtaanee ki nga xam ni mooy Serigne Mamar Sey Nibrasu Ñambur mi nga xam ni boo bëggee gis xam kan mooy borom bis bii di borom Daaru Muxti demal yëri am mbindam fa tabarakallahu ni ko sëñ Abdoulaye waxee sànq waaye dina am boo xam ne nag dañu koo jagleel koo xam ni fekkewut mag ña waaye mag ña yóbbuluñ ko dara muy Serigne Aliou Ndeye Dara Mbacke moom Serigne Ahmadou Dam Fati fa mag ña tegoon seen tànk ci bëgg yàlla akub yonentam ak lëggéeyal ko fa la teg tànkam ba am ngërëm ba ku mu gërëm fa nga am ngërëm ba nit ñu bëree bëri topp la doy loolu moom it danañ ko jagleel plateau boo xam ni lépp dañ koy waajale bis bi incha allahu rab mbokk yi bis baa ngoog dimanche dina am plateau boo xam ne dañu koy jagleel Serigne Abdou Karim Touré Serigne Abdou Karim ture bu ñu ko tuddee fa tabarakallahu nga gis pas-pasam bu mag ba ak itam mboolem waxam yu yéeme yi nga xam ne bokk na ci la mujj fa tabarakallahu mooy ndekete li aju ci Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp matu mu am ramm kooku nag la mu jëf diggam ak Serigne Touba ba am ba moom war nañ koo fàttaliwaat ndaw ñi ngir ñëpp war a roy ci moom bokk yi daal màggal gi moom mi ngi kër Serigne Ganna Messere Maxtaar lépp ci xam-xam lay doon waaye tegu ci fàttaliku jël dalil nag mag ñaanalu Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bis ba nag bu ñu càggee mi ngi war a doon dimanche ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci kër Serigne Ganna ma fàttali leen ko boo jugee Touba booy dugg dëkk bi doo daan bi ngay njëkk a jot ci sa càmmooñ boo xoolee penc moomu mooy kër sëriñ Gana Messere Maxtaar mi ngi ciy woo ñëpp sëñ Gana nee na ku mas a lebal ba mu lay lebal bis biyee tax lu ko waaye di lebal bisu borom daaru attan na ko ndax borom daaru ku fat doo fanaan biti mi ngi ciy woo ñëpp di séntu ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum di ci woo itam mboolem organe de presse yëpp moo xam télévision yi moo xam site internet yi la moo xam rajo yi la moo xam presse écrite la moo xam mboolem sa réseaux sociaux yi la ñoom ñëpp mi ngi leen di woo ci bis bi ndax ñoom ñoo sëñ Gana ñoo bokk waar wi lu sëñ Gana di lëggeel Serigne Touba ñoo ci taxaw ànd ceeg moom yaatal ko te yaatal ga mooy tax mbokk yi man cee jariñu ñoom fa tabarakallahu ñoo sëñ Gana ñoo ànd liggéey bi ñoo ngi leen ci woo ñoom ñëpp di séntu ñëpp di sant ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu am na lu ma bëgg a dugal bu noppee ngeen kii ko dafa ko fàtte mbokk yi ñëw nag dafa am ñoo xam ni ku tudd sëriñ gànna tudd leen ci wet sëriñ gànna ñoo koy wettali bu sëriñ gànna wettali ko ñoo koy dalalal gan ñi man naa mën naa cee tudd koo xam ni mooy sëriñ Adama Samb nga xam ni boo ko tuddee tudd sëriñ gànna keroog ba ñu fondement kër gi ba fi ñu toll taxawaayam ak jëmmam aku njabootam mosu jóge ci sëriñ gànna bis bii day takk ndigam ànd ko sëriñ gànna sëriñ du mbub fa tabarakallahu moom itam noonu la koy defee diggam ak sëriñ gànna ñëpp xam nañ ko waaye koo xam ne ku tudd sëñ gànna nag tudd ko ndax fu mu jëm ñooy ànd liggéeyub sëñ Tuubaa bii lu ci waaye xamut ku sëriñ gànna xamu ko mën na la ko nettali mooy sëriñ daaru jéey sëriñ daaru jéey moom itam fa tabarakallahu bis bii lu ci bari ci loxoom la nekk ñoom ñooñu ànd ak soppe yi sëriñ Ousmane ñoom ñëpp ñooy xaar gan ñi teertu leen teral leen buñu te jógee nag dugg ci màggal gi yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi